Pros TV tey ñoo ngi teew fi Mbour ah, mbuur li ñu fend mooy King Kong ñu ñëw fekk ko ci salle bu ñu wax bu ñu wax ah, Barki Sport boo xam ne xalifa Diouf moo ko moom di champion du monde ci wàllu judo kon ah, mbër ziar nañ. oui bu baax a baax a di bëgg di la delloo seen wàccuwaay ñëpp di gërëm champion Khalifa Diouf ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko bëggee. waaw mu ñuy kii saalam bi tey fi lañ nekk nii fi la ñuy defee émission bi di leen gërëm yéen waa Lag Lutte TV bu baax am ñu sant fay waaye ñu ngi gis lu ngeen def si làmb yu baax di ko rafetlu bu baax askan yëpp a ngi koy rafetlu ñu ngi kontaan si yéen bu baax a baax a baax. merci beaucoup léegi ñu dugg ci biir émission bi lan moo waral King Kong lan moo ànd tur King Kong. waaye King Kong bi rek ab booy la rek nekk si yoon war a dem ooy di gërëm sama grand Paul bu baax a baax di ko siyaar moom moo ñu tuddee tur boobu dañoo jiwoon entraînement 11 jours di dem di ñibbi ñu dem ba si yoon bi moom ëppoon doole fuuf mais dama ko jàpp jaa ko ci kay konkong yëkkati ko dóor suuf mu ne ma doom day mbër moom naa mu ne ma tuddee naa la king kong mu ne ko waaw man itam may bëre fekk sama sama doom day king kong ne si lamb yi mu koy suba trop trop mi neex mu ñu koy wuyoo ba léegi waaw di ko charé bu baax di ko béggee moom itam kon king kong gi numéro 2 la waaw king kong numéro 2 la waaw king kong king kong numéro 2 ok léegi ñu ñëw ci wàllu lit avec lit simple bi ah waaw parce que yaakaar naa ci nga gën a concentré wu léegi ren ñaata drapeau nga am ci wàllu simple. leen moom dañoo yéex a compacture quoi parce que ba ñuy paree fekk na son bi tëj xam nga dañoo yéex a jóg gars yi njëkk ñoo jóg waaw sama fan ci club bi am rek sama mbooloo bi na ma ren moom dafay xool nooy def quoi parce que bëri nañ làmb mais bëriwul noonu quoi ñu bëri bëriwul léegi dañoo teel ren mais daaw lañu gën a compacture bu baax a baax a baax daaw moom compacture nañ trop. léegi lan moo waral lan ma waral daaw nga gën a compétir ni ren. waaw daaw dañoo teeroon la pare xam nga teel jog sama gaay ko ci melni ci tor toor waaw di ko bëgg baax mu japp ci baax xam nga ñu teel jog xam nga pare fep ak sama grand frère yi nek sama ko ñëpp ma leen siyaar bu baax xam nga rendi tam xam rek waaw nu mu demee la quoi mo tax mo tax quoi. waaw mais en tout cas dañ na mbeur mom du du pare du nu mu tëddi euh, du ki day pare. waaw pourquoi yo pare woo. waaw lo waaw loolu tamit xam nga mënul ñak waaw amna na da nga am saison bo xamanteni ni leen non du baax sama son gaaju non la fa demé mo warul woon daaw xam nga compétiteur yi bariwul woon ren compétiteur yi bariwul woon noonu moo tax quoi ñu teel a bëri ay quelques lamb teel a arrêté parce que ñun si ndigal rek la ñuy woyee si ndigal rek ah dañu naan def la ñu def dañu naan tere leen dañuy tere tamit ñu bàyyi parce que ay boole rek nekk ay mag xam nga nekk ay kilifa itam bu ñu digalee la def bu ñu teree tamit dañuy bàyyi loolu waral ren ñu yëkkate ci saison. Hmm. kon baax na léegi ñëw ci King Kong moom ndax euh, am na métier boo xam ne si nii du lamb kese. waaw sant yàlla bu baax am naa métier ingrédisateur laal mooy defar pono maa ngi Abdoumane bu baax di ko sonn sama patron moom jàngal métti bi këram may tonni mu ber ma waaw maa ngi gërëm sama booy nekk foofu yëpp di leen gërëm di leen sant ñoom fa laa leen bàyyi nii sax oui waaw métier maa ngi koy continuer bu baax a baax baax métier maa ngi continuer seen émission bi te yéen moom fu ngeen ñëwoo leen wuyu parce que yéen yéen jaral lépp waaw parce que euh, père ji maalo maa ngi koy baax moo bombardier moom dañuy wax ne da am métier mais lamb rek mbër da am métier ñu ko wax lolu deug la mu ne mbër am ci lo yëngu des fois ñu doon ci entraînement dina la ñu réré mais légui lepp ñoo koy defaral suñu bop ok mais mbeur dafa fiir. waaw ko bolé ak métier bobu non waaw mais ko doon champion. waaw lolu deug la mais ñu dara ñu ci ñu entraînement gën ko respecté xam nga dañoo yokku dal mais wañu wuñu bolé ak métier. hmm mbeur boko bolé ak métier nenañ mbeur manam dafa métier métier bëre mënul bëre dafa fiir mënul and ak métier nga bëgg gérer lolu non bëgg doon champion. waaw lolu deug la danañ bëri dafa fiir mënoo koo boole ak métier mais xam nga nit ci loo nekk rek daam loo ko booleel moo tax ñu jël bëri bi boole ko ak bi des fois bu son bi ubbee nii dañuy dem dóor waar xam nga di dajale di am ab som sooy mën ubbi ñu mën a préparé wu si côté bépp mais xam erreur bu fekkoo tamit dóoruñu waar dañuy xaw a day xaw a doy waar suñu côté moo tax ñu jëlee da nga amul ku la jàppale wala la waaw si ñaa ko ma ko may jàppale noonu sax mais xam nga tamit am na yenn yoo xamante ni yu bëri doo ko mën a wax nit ñi ñu ne si jàpp ñu si jàpp gars yi moom ñuy jàpp si lépp côté bépp vraiment su ma amee comme son bi tëjee nii xam nga dañ naan mbër bëriwul instant bi rek lamb amul rek xam nga waaw moo tax ñuy dóor waar féete si atelier bi tamit di dóor ba soog bi xaw a ubbi nii waaw léegi yow bëgg boole atelier bi ak entraînement yi est-ce que mën na ànd. waaw dañuy xëy fajar dem entraînement bu ñëwee dañuy récupérer récupérer récupérer ba 11 ñu dem atelier quelques minutes rek lañ fay am toog tuuti rek booy ñooy dóor sax xam nga ñu toog fa tuuti cinq heures ñu demaat entraînement booy bu ñu wàccee ñëw kër ga waaw wala soo ñu bàyyi bu suba tamit ñu teel faa dem suñu tànk daal bëri foofu daal ba soo ba suñu tànk dafa bëri mm-hmm. oui. léegi ñu ñëw ci wàllu lutte avec frappe bi fan nga ci toll. waa lutte avec frappe bi maa ngi sant yàlla bu baax waaw am naa ci ay combat waaw bala 27 bële passé laa mujjee bëree. waaw yaa hmm. kan la woon mag Léora ñoo doon bëre waaw kan moo amoon ndam yéen ñaar moom moom mujj daan moom mu la mujjee daan kon ren benn benn combat nga am waaw ren benn combat la am parce que xam nga avance moom mën na tourner fépp gars yi duñ ko mën a jël xam rek maa ngi koy nuyu bu baax moom ba nga ko jëlee waaw bëri nañ ko si jàmm ak salaam yàlla ya. ya may na ko ndam. mais yow sa combat waroo jafe parce que yow tojoo non si ankay <laughs> muur sama combat yomb ya, hmm. fi de. fii waaw da ngay wër ba bëgg a dee doo fi am moom hmm. vraiment. bala gaa gaa yi jël dañ koy seggi seggaar ko de. Hmm. waaw xale King Kong dawul coombe bala koo gaa yi jël. waaw mais King Kong King Kong moom tëjul fenn moo tax moom ñu di ko gis ci lutte sans frappe bi. waaw loolu dëgg la mais lutte sans frappe bi xam nga rek comme du ma la expliqué sànq nu mu fa demee la mais ren incha allahu ñu dégg mbëri dañu fay dégg parce que pare nañ fépp. Hmm. pare nañ fépp waaw pare nañ si côté bépp moom. mbër dañu day pare boo nee pare nga fépp ça veut dire yaa ngi ci ànd pare nga ci wàllu entraînement. waaw. ci wàllu mystique. Hmm, ak wàllu finance. parce que mbeur ak lolu ñoo and waaw lolu deug la parce que comme lolu wax rek tout le temps sans fan ci club bi réunion ngir man di bàyyi seen lepp ngir man xam nga kon dañu wara a trouver ren dañoo war def lu doy war dañu wara ñëw ak benen façon benen façon benen façon bu graw sax waaw dugu dagar dugu dagar bu baax waaw ah, ñu promettre di ñëw mbuur duñ tegg dagar ñu dem Dakar mais Dakar bo fa démé lit simple mo fa am ak lit avec frappe waaw boo fa duggé lan nga fay def ci ñaar yoy waaw lit frappe dañ fay dem ren bu soobe yàlla dañuy dem fara bi xam nga simple tamit dañuy dem compacteri waaw comme ni ko gars waxee dañuy dem compacteri waaw ba xaw li ñuy am parce que xam nga rek mbor moom faa nga compacteur compacteur moom mooy lambo boo compacteur wu doo mën a jot si lee faa nga compacteur dañu fa dugg frappe dañ fa dugg simple dañ fa dugg fépp waaw lu tëgg rek dañuy dem Dakar bu soobee yàlla. mais ki nga ko man dama gis ne maanaam ñi pratique euh, lit euh, lit sans frappe ah ñoom boo xoolee seen nopp yi day am corps mais man sa nopp yi gisuma ci benn corps. non si ankay sax amoon na nga mais xam nga rek ku ci nekk sa habitude loolu mom presque ñoko ko bëggul xam nga dindi ko ba lu si des sax bëreetul li dindi ko quoi tolloon nañ trop ñu ko dindé parce que da demoon ba xaw a fàttali na bi si waaw ñu ñu jëm ko dindé waaw. loolu nga wax de est ce que am. waaw non loolu am. loolu mo am mo vraiment. est ce que da ngay jaay sa bop non non sax ban kàddu di jaay ndé <laughs> ndenge mom sa dépassé ni ngay contacté rek waaw mu am na ay champion yu fi nekk tam amuñu ngay ñaa. yu ci non la fa demee moo tax. ok légui comme dañ né ñun dañuy innover dégg nga. mbër bu ñuy seeti dañuy jël groupe whatsapp am bu fekkee am na fans club ñu jël ci fans club ay quelques gars yi envoyé euh, seeni seeni question léegi dañuy dugg ci question yooyu noonu dégg nga tur yi duma leen mën a jàpp mais jàpp naa question yi dégg nga parce que am na ko ci posé question mu ne King ndax pare saison bi ci wàllu mystique ci wàllu mystique parce que ñaari question la la posé ndax yow dugg nga ci àll bi dégg nga dem nga ci sëriñ yi sangu nga takk nga waaw waaw loolu yëpp moom loolu yëpp instant bi ñu nekk moom ñu ngi ci waaw ñu ngi dox lépp parce que ñu ngi pare nañ fépp daal comme sànq nu ma la ko waxee rek waaw ñu ngi pare fépp côté bépp moom gars yi ñu ngi jàppale bu baax instant bi moom ñu ngi pare fépp waaw incha allah ñu ngi def lépp ñu ngi pare lépp ñu ngi def lépp moom vraiment waaw di gërëm sama gars yi nag bu baax waaw ñu ngi def lépp waaw <laughs> waaw. keneen ki dal di ñëw mu ne maanaam est-ce que yow jéem nga pour ñu samp la parce que mbër instant bi lañ koy samp. waaw loolu moom loolu moom ñu ngi si loolu moom ñu ngi si quoi loolu moom waaw suñu jour fii la quoi loolu moom suñu la waaw xam nga ñun moom ñu ngi pour loolu quoi loolu moom ma si mën que loolu moom mooy loolu <laughs> waaw ñu ngi pare fépp daal ma waxee ni ma la ko waxee rek ñu ngi pare fépp. ah non xam nga rek. waaw dañoo tamit xam nga bu ñuy dem ndam luñ ñuy yab xam nga moo tax waaw ñu si côté bépp waaw ñu ngi pare fépp daal loolu moom lu si mën a leeral lu bari doo ci mën a leeral lu léegi ñu ci beneen question bi beneen question bi mooy nee nañ King Kong maanaam bu duggee ci làmb di bëre day changer melokaanam ba dem na ba dootul dootul xàmme ay supporters am. waaw man moom vraiment loolu daan nekk si man depuis booy ba léegi. Mhm. waaw depuis booy ba léegi su may bëri ji waaw su ma ngeen ma bëggee suñu buntu kër day xaw a doy waar damay su ma demee stade ba ñëw sax day ma naan non non kii moom mënumaa gëm ne King Kong la kii ba mu j si kër gi nu mu mel. ak ba mu ñëwaatee nu mel non ñun bu ñuy dem waaw dañuy nekk beneen beneen couleur daal. lan mooy waral loolu. waaw xadar bi mooy ëpp ak sanc bi ak dem jëli victoire ñun lépp lu ñuy def rek waaw dem jëli victoire mooy xam nga moo tax bu ñuy dem day am lu ñuy jël teg ko fële am lu ñu wane. moo bu ñuy dem nag xam nga nu ñu doon mel nii duñ ko mel bu ñu xasee ba takk séeréer ba pare rek gisatuñ dara loolu dem jëli victoire moo tax ñuy changé melokaan. waaw noonu la fa demee. keneen ki daal di ñëw ne maanaam fan sa club bi. lan nga ciy sentir yow lan nga sentir ci fans club boobu. waaw fans club moom moom mooy yokku mbégte ak kontante bu baax a baax a baax a baax maa ngi leen nuyu bu baax di leen sant waaw bu fii tamit ñoom dooleel nañu jàppale nañ ma bu baax a baax a baax a baax vraiment ñu may jàppale bu wër parce que lépp ñoom la parce que nit amoo dara lu dul sa koñ te sama gars yi dañ maa bëgg muy xale muy mag góor jigéen mag ndaw ñëpp maa ngi leen di bëggee di leen nuyu bu baax di leen sant ñu may jàppale bu baax a baax a baax vraiment gis naa seen taxawaay si man te instant bi nii nii nii dañ ma sat loo xamante ne nii non gëmatuma ne mën naa am tool tànk ginnaaw instant bi ñu nekk. ok ñu ñëw ci beneen question bi keneen ki daal ne li mbër di laaj est ce que yow yaa ngi koy def mooy dem entraînement soo jógee entraînement nga sangu teel a tëdd teel a yeewu demaat entraînement. waaw gisoo xam nga si entraînement nga ñu fekk ni si salle bi nga ñu fekk. Mhm. waaw dañuy jóg fajar teel dem matinaalu géej xam nga doy be gazal ñew yek ci kaw jalbi bi charge ngo ñu dem contact contact yu metti ikram wa jamu ko bu baax xam nga ngo ñu dem contact su ko defé muy xati demal entraînement jour bi la dañu am deux séances wa bu son bi bu son bi tejé ni dañu am deux séances deux séances est ce que doy na wa deux séances bu son bi tejé mom lañu mëna am parce que do compétir do def dara waaw motax mu do baye mais deux séances bo xamné yow yaay wajal yaay wajal lamb dewel to li ci dess manam baretul li ci dess boko xolé presque ci euh, un mois et quelques la rek la toll yow nga bëgg a def deux séances te yow ne champion nga bëgg a doon da nga bëgg a dugg Dakar. waaw mais bu sooy bi demee ba xaw jege si dañ yokk dañuy dem géej jógee géej ñëw salle musculation jógee salle musculation récupéré bu tamit xam nga dem récupéré bu demee ba si ba xaw a nag léegi da koy def boo jógee fajar gi géej nga jaar ci salle bi xam nga toog ba cinq heures dem entraînement contact yi boo contact jaarale si salle bi yëkkati tuuti ñibbi. ñëw ci wàllu bëre bu léegi duñ ko génn king kon kan moko jangal beure question bobu bu legi tam amna kuma ko laaj kan mo la jangal beure waaw kuma jangal beure mom moy ma ngi gërem num tafa ñoo tax ma bëgg beure qatar xama ñom ñoo tax ma bëgg lamb ak ñom cheikh sénégalais vraiment ñom ñoo tax ma bëgg lamb parce que mom cheikh bu doon beure ji ma ko doon tel ay bagage xam nga mu dama dama ba ci yeg mëna mbeur on nga mëna mo war nga mëna nek champion mëna ko ah mëna ko waaw cheikh bobu ban cheikh cheikh sénégalais Cheikh Sénégal Cheikh Sénégal waaw. mais kooku siiwul. waaw non en kay sax dafa teel a dafa teel bàyyi rek jël lépp jébal ñu ko ne ñu mbër dem leen. waaw xam nga ak ñoom Pakala xam nga maa leen nuyu bu baax ñoom itam di leen sant vraiment waaw mu ngi sonn ñun di ñu jàppale côté bépp ñoom ñoo jàngal làmb waaw parce que newoon na ci ICREM ci beneen question bi am na ku ma posé question mu ne ma sa diggante ak xale yu jigéen yi ndax yaa ngi leen di bàyyi xel di leen moytu bu baax parce que daa war a moytu xale yu jigéen yi. ndeysaan ñooñu moom dañoo bëgg King Kong dawul njom bi trop sax ñooñu noonu moom ah vraiment dañ maa bëgg ba sumay bëri ji dañuy sonn ci man mais samay rakk ak samay nit man sama sama supporter dafa ëpp ay jigéen ñi ma bëgg dafa ëpp ay fans club bu jigéen xam nga rek dañu may jàppale bu baax a baax a baax waaye ñooñu samay nit lañ sumay bëri ji xam na sama fans club bi lañ bokk ñu ngi ciy jàpp affaire yooyu mais jàmm ak salaam rek laa seex ak ñoom.

ñu ne ko waaw bu ñu gétt gi nag mooy jóge entraînement dalu sa gaale xëyaat dem entraînement moytu yu bëri ñu ne ko waaw te ba tey ndigal boobu lu ñu si la ñuy wéy ñu ci gis résultat yi sant yàlla bu baax. léegi lan nga bëggoon wax tey te laajuñ la ko lu jëm ci làmb. waaw lu jëm ci làmb moom lu nekk suñu karam mooy xanaa pare fépp rek waa di waaye saison ren bi yàlla def si jàmm xam nga ñu teel ñoo dégg promoteur yi mën a ñëw nag ñu combat yi. parce que suñu combat yi vraiment day sorante te waroo sorante man xaw ma booy ñooy daw xaw ma nu mu fa demee noonu mais mi bokkul ak yow làmb am nga wàcc. dégg nga même boo bëriwul sax nga takk xam nga dem seetaane ñëw bàkku nit ñi xam ne kii kat mbër la nga ñëw dëkk say morom mbër est-ce que yaa ngi def loolu. vraiment mais xam nga ñun dañoo dëkk mbuur tax ma suñu supporter dañoo xaw a doy waar bu ñu wàccee si star rek day am leneen lu muy niroo xam nga moo tax moo tax loolu noonu dañ koy def mais bariwul noonu quoi waaw mais bu ñu déggee làmb rek dañuy dem des fois bu ñu bëriwul dañuy takk xam nga dem takk mbëri mais gars yi daal ñooy daw dañoo war di ñëw nag bëri suñu biir. ñu mu ngi doxal ay combat mais tout le temps promoteur maanaam wala yeneen gars yi boo leen waxee Sidi Diakhaté dañuy tëgg mais boo leen waxee xam nga dañ naan ay sa combat nii du yomb du yomb nii mais booy dañoo war a ñëw ñu bëri daal dañoo war a ñëw daal vraiment ñu bëri parce que xam nga di entraînement tamit doo am combat wala muy sorante tamit mënul bëggee fan si club bi ñu suñu seen bu ñu jógee si combat bi tey dañuy bëri suba Wah, mais yaa mën a jaay sa bopp xam nga loolu waaw loolu moom dëgg la <laughs> loolu moom dëgg te ñu si yoon bi tamit allah ko bàyyi benn yoon bu soobee yàlla ok King Kong kan lay gërëm waaw man moom maa ngi gërëm nga pas ba mu baax parce que yéen ay dóorkat ngeen <laughs> waaw man moom damay gërëm sitoor mi toog parce que dibi ma xamante ne moom ba léegi rëccuwuma ko vraiment day sonn ci man torop torop torop torop sax oh, combat mom Sourou Baye lepp mo koy res combat bi mu nané lepp mom mo ci japp xam nga di def wa mo jël sama rak ma ngi bu baax vraiment di sante sama xarit la sama sama gaan la sama goro la ma ngi nuyu bu baax moom tam di sante di sama côté bi ségu mom o ma fee am heure ko fëggee day jog ànd ak ñun waaw ci côté bépp nak di gërëm tamit sama doom day vraiment mu ci japp ci bagage parce que mom tam ama buñ ko woowee nako sal bi rek dafa préfito xam nga baye leppam ñu ñëw ko di lay xalfa mi ñu nek salam mom muy ngi boy ci côté bép nak muy ngi jàppale côté bép sa fon ci club bi nag non oma san fay ñoño wa ko ci melni grand goura maa ngi nuyu bu baax diko sante sant grand serif jara maa ngi nuyu mom tam diko ko diko sante sant bu baax was sama dom lay maa ngi nuyu bu baax ak lu lamisi vraiment ñu ngi may jàppale bu baax a baax a baax waaw waa King Kong dawul njomba yi saa fan si club bi ah man dama fan si club dafa am ay boo yoo xamante ne ni tamit vraiment jaral naa leen lépp te ñu nekk ay tout tànk programme bu ñuy def rek dañ ma jiital lépp lu ñu may dañ ma jiital ñoom tam maa leen nuyu bu baax tamit di leen boo yooyu. waaw di bëggee tamit sama waa koñ nag Omar Sane ñu ngi jàppale man bu baax xam nga damay jékki-jékki rek xam nga nit yónnee mu dara na ma joxal Ibou ne ko nii ak nii ak nii nii ak nii ñooñu tam maa leen nuyu gale buñ lu binta maa ngi ko nuyu bu baax di ko sant waaw di ñaanal nag sama mag ju génn àddina jamono la may sax yàlla ko yàlla xaare àddina ak sama tante maa leen nuyu bu baax moom itam maa ngi leen ñaanal yàlla xaare leen àddina di gërëm sama papa yàlla fi yàlla baax ak sama yaay bu baax ak sama grand frère ñoom bu laal xam nga pap muru Gora xam nga sama jabar magi bàyyi ma kenn daal maa ngi nuyu gars yëpp yéen nag aw ma seen fay yéen moom vraiment moom yéen a fi nekkal askanu lamb bi parce que ñu ngi gis tamit lu ngeen di def tout le ñu ngi leen di seetaan waaw dañuy kontaan seen bu baax a baax baax baax xale yi sax fu mu toll nii yéen la ñuy wax xam nga ñu leen di tam bu baax yéen ciy jàpp si côté bépp oui. dégg nañ la King mais dawul coow bi mooy lan fan sa club bi King Kong dawul coow la. dawul njombe waaw mais kon yéen ci ba ngeen dëkk. non non sax c'est lu ñuy ñëwee waam xadar rek sama gars yi. laay ñëwee dafa am doole pouvoir lañ ñoom moo tax suñ mbër bu amee combat ñëpp a koy xam dañuy xam ne seen mbër moo am combat parce que ñun mbuur lañ dëkk ongaat xam nga ñoo fa njëkk taxawal fan ci club King Kong dawul njombe ba tey boo fa demee mooy loolu booy koy wax daal naan King Kong dawul njombe fa la dëkk waaw booy xam nañ lépp ñun ongaat c'est lépp ñun la ñoo bokkoo dañoo màngoo quoi bokk ndey bokk baay xam nga ñoom itam ñu ngi jàpp si côté bépp waaw moo tax ñoom boo xee ñu ne King dawul njombe c'est que seen ñëw esat moo yéeme ak seen mbër tamit nu muy taxawee pour esat looloo garaaw loolu ñun rek ñoo ko am. moo tax booy tuddee ko mais ñoom it dañ cee war a bàyyi xel pour ngay am combat. parce que ah. bu ñu dee def njombe nii du am combat. non non sans cadre du dañuy ñëw soufflé dañuy ñëw yëngal supporter moom ñoo ko dàq si àdduna dañuy ñëw supporter bu baax mais duñu histoire duñu xuloo duñu xeex dañuy ñëw supporter seen mbër bu baax a baax a baax mu jeex nit ñi loolu lañ seq ak loolu lañ seex ak promoteur yi kese. waaw ñoo ngi ak euh, Cheikhou Diallo yow yaay entraîné King Kong ci wàllu physique nan ngay préparé sa mbër. waaw avant maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal euh, parce que li ngeen def nii tey moom nekk na lu rafet nekk na loo xamante ni itam xam nga day avancer le milieu làmb euh, bu ñëpp defoon yéen itam làmb dina gën a dem ci kanam te dinañ mën di xam yenn mbër yu bëri ñoo xamante ne ni ñu ngi ci région yi ñu ngi ci département yi waaw waa kiñ ko moom nu koy préparé moom euh, bi mu ñëwee def ñoo jox boppam waaw xamal ñu ne saison bee passé dafa am nu mu demee woon euh, saison bii mu ñëw tellement gis expliqué ma ma ne ko mbër mu ne waa ma ne ko man aw ma benn problème man damaa bëgg mbër parce que dama dëkk ak ay mbër maa ngi dëkk Joal Fadiouth mais fii laa nekk daan sama doole mais aussi mbir moom boo si yàggee ba nit wóolu la itam jox la confiance bi euh, da nga koy jox cëram euh, bi mu ñëwee itam expliqué ma. ma ne ko man dinaa sacrifier lu bëri pour jàppale la pour nga dem ci kanam. ok mais ci wàllu entraînement bi ñaata séquence lay am par jour. waaw ci instant bi mbër da ngay def hivernal comme que saison bi tëj na. hivernal mooy comme naka li nga xam comme bu saison bu saison bi tëjee. mbër dafa war di entraîner. entraînement bi ngay def mooy da ngay def physique. def masse yokk masse musculaire bi. Mhm. boo paree nga def euh, résistance. ak euh, souplesse. parce que loolooy tax après yaram bi day neex te doole bi da siy des en plus di nga garder sa ligne hivernal bi euh, pour nga mën a raw sa moroomu mbër yi la parce que saison bu tëjee rek mbër tàmm na di def saison bu tëjee mu toog te loolu dafa nekk loo xamante ne nii baaxu ci mbër mbër bu bu bu toogee day perte lu bëri sportif day perte lu bëri waaw bu xëyee dinañ def euh, dina dem géej def géej sa yéeg dune Euh, après bu ñew sal, loolu ba dal sal bu dem gi fajar gi lay doon fajar gi. ay dinañ jóg ay 5h30 6h dinañ daw ba ba geej 6h 7h nañ fekkat fii nii huit heures fekk saal bi ubbi ñu liggéey li ñuy liggéey mu ñibbi dem récupérer ji ngon gi jot ñu nekkat ci parce que il faut mom muy def 3 séances pour mëna am li nga xamante ni mom mom la bëgg parce que tay mom bi fi fiy ñew am lii mu am nii amu ko woon. ok waaw mais yow bi nga ko yoree ba léegi gis nga ci moom loo xam ne si neexula la ci moom. non kii moom zéro faute parce que départ bi xawoon na métti si moom mais am na courage quoi am na courage mais dem na ba benn moment xam na ne moom am na lu ko war moo tax mu def effort redoubler effort am xam ne instant bi dafa war a percer mais moom mosumaa gis loo xamante ne nii euh, naqari na ma si moom moom. à chaque fois dina kaf dina ree te ñeme na entraînement bi en plus ni nga ko koy waxee noonu la koy defee. ok wax mbokki Lac waaw Lac Rose TV moom la mooy li ma wax sànq rek euh, dinañ jaajëfal bu baax te xam ne lii ngeen di def nii euh, dafay dafay suuxat làmb dugg ngeen si département du mbuur tey kon boo dugaatee si beneen département dinañ tax ñu xamaat beneen bër beneen bër encore waaw tey euh, King Kong moo leen yëkkati King Kong itam xam

Euh, <coughs> tuuti tuuti rek ah soriwante noonu nag mais France moom mooy loolu. ok léegi dama lay wax en wolof daal. Euh, euh, mooy loolu daal pour pour daal loolu moom bu dee ci si noonu parce xam nga tamit. waaw France yaa ngi si. waaw moo tax mu jël assurance noonu. waxal waaw ama rek pour <laughs> pour manger quoi waaw loolu la man. Ah. waaw kese léegi ceeb bi anamu. pour ceeb lay manger tamit. léegi bi de. loolu yëpp daal ci biir la. waaw ay <laughs> ma gën a xam. Hmm. waaw mooy loolu. moom soriwul ci noor xam fi <laughs> France yi mooy loolu. <laughs> waaw kon asalaamaaleykum bi bokki buur ah, ki nga ko moo nekkoon noonu ndeysaan moom it doon nit ko xam ne si ni sampion la buy doog a jóg ñu war ko jàppale bu baax a baax parce que euh, feeñagul ci lutte avec frappe bu baax mais lutte simple bi mu ngi ciy béy waaram bu baax a baax kon ngeen jàppale ko yéen doomu mbuur euh, yéen waa fan sa club King Kong nu mu tuddee sax dawul njombe ngi ngeen jàpp ci bu baax a baax mais nag xam naa ne dawul njombe moom war ngeen changer tur bu baax kon bonjour wa ah 欢迎来到。